salaamaaleykum eh, yaay maa ngi lay fay. tur bi naka la. man maa ngi tudd Fat Sam. loo bokk eh, sa doom bi nu mu tudd sax. Aminta Diop. Aminta Diop ah, di di sa doom la. waaw maa ko jur si. Eh, loo ñu mën a wax la moo fi xew. xanaa may sant yàlla rek di julli si yonent bi tedd bi sallallahu alayhi salaam di sant sama wasila Serigne Touba Xaadimal Mustafa sama yaakaaru tey ëllëg. na alhamdulilahi rabbil alamin di sant di ñaana yàlla samay waajur yàlla na yàlla xare àjjana firdawsi gën a santaat yàlla ndax ku du may sa bopp loo am jëlal ndogal nag bu xasee ba ñëw ñëw na ndax moo demee yàllaa ko booleeg aminta bi mu leen boolee boolee leen si farata ñu yàlla boolee leen biñ leen boolee ndogal fu nekk lay am ñu jël leen mayee leen biñ leen mayee lu nekk dégg naa ko si dernière fois bi bi ma demee di seetlu sax coow li sonal ma ndax ku nekk xam na ni jaboot jàmmay mbokkam baak sañ Fall du ma bi ma demee di seetlu dañ ne ma ñi dañ leen dëddaale dañ leen dëddaale bi problème bi amee tamit pour confirmation dem naa seetlu ji ñu ne ma dañ leen dëddaale te ay jigéen ko def waaw non waxuñu ma tur parce nit tamit da wax te yàlla tax te ñiy wax nan seet seen diggante ak seen boroom bàmmeel xat na lëndëm na tëraay bi yàgg na te ku dee ak sa bàmmeel loox fi di nga wax fële samay sant samay mbokk ndax bi mettee samay mbokk rek laa gis ak samay dëkkandoo yu baax yi dëkk fii ndax. voilà soo xoolee. Mhm. Euh, Modou ya doom nee nañ moo sotti jëkkëram boobu man du loo xamante ni dinaa dinaa ko dëggal parce que loo xamante ni deux heures du matin la am. ñoom c'est pas la première fois ñu jote chaque jour dëddale boobu moo indi xeex bee xuloo bi xeex tey xeex ëllëg xeex suba fu nekk lan xeexee ba fii dañ daan toog bu ni attaaya nga gis kaas yi naaw baraade yi di naaw ma xam ne nag moo dem ba moo jur sama sama sët yi kii mooy deuxième doomu Aminta Mamor la tudd ma xam ne kii moo jur Mamor kii moo dem ba moo sama sët yi boo boddiw ma ko moo dem bi fii la ñu woon dëkk fi. mais sëy bi yow d'accord nga si sëy bi. sëy bi ah li tax ba duma si d'accord dama si d'accord parce que. waa ñoom d'accorduñ si. ñoom d'accorduñ si parce que dem nañ si tax ba nga xamante ni euh, sama doom demoon na ba defatul ak ñoom neen sëtam yi bu daan ñëw foofu kër ñoom mari dañ leen di dàq baak sëñ Fall ma waxantu. du ma waxantu bu daan ñëw kër mari seen maam da leen di dàq si preuve yu ma leer du leen wax dara. bu ne ñi nga dem sama kër maam rek man leen dem leen waaw ñoom nag lu nekk wax nan ko maamam génn na mère Seyna génn na wax na nee na moo dem ba amit dan ka góor aminta moo taal kii am. Euh, moo ak jëkkër ji luñ <laughs> dama bëggoon a jàpp ba set teg sama loxo ci kaamil. yow bi ni mu ko affaire bi fekkewu ma ko affaire bi dama tëdd dama feebar damay jaay. ma dem marché siburu siburu ba sonal ma ma ñëw ñibbisi tëdd ba deux heures du matin sama sœur yee ma na ma faa doole ñëw wax si moo de ak aminte ñi ngi xeex sama jëkkër génn man génnu ma de sama jëkkër génn bi mu génnee dem arrangé ne leen tëdd leen ba suba bi mu ne tëddi leen ba suba sama jëkkër bi ñu koy oo sama sœur bi dana ko ma jóob ñi ndax tiit ndax leer la gis ne ko ñii de taal na néeg ba moo demba de taal nañ néeg ba taal na néeg ba bi sama jëkkër génnee gisul néeg bi tàkk parce que boobu maman boobu moo demba mi ngi tàkk génn daw dugg ci biir kanaal bi bi mu dawee dugg ci biir canal gi si la sama jëkkër génn ma taraxlaayu génn bi ma génnee juste si la moo demba di génn ci kanaal gi am oto buy ñëw oto bi nee bi mu ñëw mi ngi ko gis muy tàkk bi mu ko gisee muy tàkkam oto bi ñëw ma ne ko sëñ bi na nga def mun a maa fi ma a ko man damaa bëggoon nga yóbbul ma kii mu ànd ak jabaram ndax man damaa feebar mënumaa dem nga yóbbul ma ko hôpital lëndëm na ma gisuma woon lakk gi ba wax sax yàlla seede na ko ma ne ko kii mun a ma ba yéeg leen ñu yéeg ñu dem camp chapeur ñee duñ leen recevoir ñu dem Youssou Mbargane ñee duñ leen recevoir ñu dem géej ñu ne duñ leen recevoir par la suite lañu dem si borom oto bi bi mu leen yóbbu moo demee ngeen ankaan Aminta ne sam papa bu la laajee nekk man xaruwuma dama doon taal sama cigarette sama yére takk pétrole ma tàkk wax ko loolu. bi ñu demee ñóbbu ko kan jam ñaajo ñu recevoir ko ma toog fi 3 heures du matin oote seen kër téléphone bi ma dem seen kër bi ma demee seen dafa am benn xaj ma ànd ak sama ma ànd ak sama sœur. te sëñ Touba rek laa yaakaar te rus naa di wax leneen loo xamante ne ëllëg bu ma la yokk sama nijoor daf may sonal sama bàmmeel bi may génne man kese di dem maa ngi fekk ñaari xale góor fii si kon bi ay deux heures trois heures moins kenn ki toog noonu kenn ki gis ma rek may dem ko ñëw moo dem ma mu tëb ma wàññeeku ma ne ay dama damaa ragal ndax fi ñuy ñëw ay jigéen kese lan te uuru mu ne ma nan dem ñu dem dugg si biir kër gi bi duggee si biir kër gi. ay xaj di mbow ma ne ko Aïda mënuma faa xaj yi de dañuy màtti nan wàññeeku ut téléphone c'est la téléphone oo sëram muy kumba ma oo ko oo muy sonné di sonné di sonné ba à la fin mu décroché ma ne ko kumba mu ne ma naa ma ne ko moo dee ma dama doon joteeg Aminta taal boppam da doon xaru kumba ne ma ma ne ko wax ko sa yaay ak sa papa fa yem ak ñoom bi ma xëyee. aminte man ka ani moo demba mu ne ma moo demba mi ngi ka mi borom oto bi bi mu ñëwee deux heures moins trois heures moins mi fekk man ak sama sœur bi ñu toog si buntu kër gi ma ne ko sëñ bi ana aminta mu na ma aminta de jox naa leen paas ba ñu ngi jëm ñaajo aminta bi mu ñëwee na ma yaa xale bu góor bi na jox na leen paas mu ne ma yaa juróom benn junni la ma jox ma ne ko juróom benn junni mu mu ne ma moom la ñu jox xale bu góor bi mi wàññeeku mi ma fekk ma toog fii 3 heures mooy ma ne ko sëñ bi noo tudd mu wax ma turam man fàtte naa turam ma ne ko jox ma sa numéro mu ne maam Mor xartu aminta jëlal numéro bi ma na ko jëlal numéro bi ndax kii ku baax la xartu moo dem ba mi ngi taxaw ma ne ko jëlal numéro bi ndax ki ku baax la mu jël numéro bi bi mu jëlee numéro bi ma ne ko téyel ma ndax kii ku baax la léegi ci laa dugg tëdd bi ma tëddee ma xëy dem hopital seeti ko bi ma demee hôpital seeti ko génn samay mbokk ñëw seesi si ko parce que ñu dañoo solidaire ñun suñu famille lu dal kenn ñëpp ay jóg samay mbokk ñëw seet ko ñu toog si case kii bi ñu toog si salle d'attente bi noonu. baag sëñ Fallou sëñ Fallou rus naa wax si moom loo xam te duma ko kii. du gisuma biteel dégguma biteel joxewuma biteel ndax mère Seyna lépp lu mu dégg naa ko. waaye ñoom bu ñu téye woon seen doom nan ko war a téyee kon aminte dina sëy si seen kër doonoo boo di woon moo demba xeeb ko. Euh, billaahi wallaahi bu fekkee mës naa taxaw si sëriñ man gaw ma tax sëriñ man damay taxaw ci géew yi ñëpp xam nañ ne si bi bu fekkee mës naa taxaw si sëriñ ne ko defal ma lii ak moo demba yàlla moo a gisante yonent bi salallaahu alayhi wa salaam wax bu defee nopp yi koy dégg doful. a recevoir xale bu góor bi ay moom moom dematu fa. ñoom ñoo génne seen doom. Ah. xamal tax ñu génne seen doom danoo doon eh, jaboot joo te dañuy gën a leen njaboot ndax bu fekkee moo dem amul dara ñoom moo dem wax si gémmiñam dama koy fekk ji ñoom teguñu ko fenn faale wuñ ko considéré wuñ ko ñu ko si famille bi ay rakk moo demba leen gën a ko moo demba ay rakki moo demba leen gën a considéré que moo demba mus nañ ko fi génne baak sëñ Fallou Mbacke si fii ngooñ mi nekk fa la daan tëdd ba weddee laaja waa koñ bi fa la moo ba daan fanaan dem na si ba si biir maam moor mi naan xaritam la te nga ne diw sa xarit la boo amee problème la main des choses war nga ko fa nekk ba ngay fanaan billahi wallahi taalaahi moo dem ba si arabu maam moor la daan tëdd di nelaw fa la daan tëdd man nag maa ko jabate jabate aminta bu ñëwee dinaa ko téye. voilà nit ñi euh, mais bon dama nañu bëri sax foofu ñoom nee nañu euh, avant ma ko doon takk moo yaayam doon jubóo sa doom takkee mais mais dañu leen ñoom ñoo xam dëddaale ñoom ñi ma seetlu bi sëy bi amee ñu ne ma dañ leen dëddaale ba jàmm amul ndax dëddaale bi moo indi na ne ma bu moo dem ma xarul woon rey sa doom ñoom ñoo xam dëddaale man xaw ma dëddaale man yàlla laa yaakaar ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa en même temps te nee nañu dañ ko bett góor ma si côté boobu laa bëgg ko waaye nga ñëwaat Aminata buñ dina ma xaw a jaaxal jëkkër ji moo ko bett góor dama ne loolu amul ah. loolu amul sama jëkkër sama sœur ngi nii boo paree ma ubbi ne euh, ma nii wan la maamam nee na daf ko fekk mu tëdd mu sotti ko pétrole taal ko mi ngi nii ay ngar daf maa sonal baak sëñ Salim Mbacke mi ma yaakaar damay jënd pétrole damay wis boo duggee sama ne léegi ngay gis ngar yi ak weñ ñi damay wis damay boyal moo demb si gëm boppam laa ne bettul ak am bu ñàkk ba pare ñànki nag ñoom ñooñ muy mari ak ndeyam jooju bu nu ñàkk ba pare di ñànki am yàlla yàlla ñàkk yàlla yàlla ñii seeni njaboot lan ëllëg dañuy màgg nan wax loo xam te ëllëg bu layoog seeni joor ah bàmmeel lëndëm na xat na yàgg na tëraay bi xat na merci ne nee na aminte fii dafa fekk moo dem ba tëdd mu taal ko mu sotti ko pétrole taal ko soo leen ma ubbi pour bañ ndax ñoom ndax paxe noonu du jub noonu dem yi bu na ëbbate ko doon soppe seen i pexe jubul bale laa jël ñaari bale pour ban tax ñu ñëw guddi gi taal fii pour ut am gaafal ma amita la la ma ngi ne néeg bu tàkk ak mat laa bu yàgg si nekk neex na xam dama leen ubbil néeg bil preuve laa bëgg ngeen xool maam aminta maamu moo demba na xam ni mag la te boo doy nee mag bu ñàkk ba pare di ñànki mag la na xool li muy wax ëllëg te li mu ma wax man dina porter plainte parce que def ma tuumaal man yaay man aminta xamul am jëkkër am far man mi ndeyam mu musuma tas musuma fay musuma fase baak sëñ Salim Mbacke billaahi wallaahi taalaahi yàlla bu mu gisante yonent bi sallallahu alayhi wa bu fekkee loolu am na yàlla bu ma fekk sama njariñal njaboot wax ju ñaaw nag mais coow bi déggoo li ma lax wax de man lu ma mun naa ko waxaat dama ne la ñoom c'est pas la première fois ñuy xeex di xuloo pétrole bi danga may déglu nee naa la pétrole bi lu leer laay wax sama doom après la la ka moom dafay sëy bi muy sëy indi fii ay yëreem ba pare moom la yëree amin taw woon la yëree rakam mu ñëw yëre néeg bi am ay maat am ay mboot boole ci yàllaa ma tiim mu ñëw yebbi yëreem yëpp ut pétrole def ko seen aminta ba pare booy pompe boo soxlaa pompe euh, pétrole bi booy pompe wala ngay wis samat laa bi mu ko fa defee bàyyi ko fa moo dem ak jot ak aminta naka damay taal sam bopp te du benn mus na fee taal boppam mus na fee dindi prise naka dama lay taal taal sama bopp aminte yuuxu sa mag bi sa mag bi génn beneen bi pat essence la sotti boppam sama rakk xeex ak moom mbaak sëñ Salim Mbàkke ba ma génne fii ñoom ñaa ñuy xeex beneen bu mu day taal amin aminta daw mu topp ko mbaak sëñ Salim Mbàkke déedéet jour boobu jotu woon taal boppam yàllaa ma tim beneen bi mu ne day rey day taal aminta aminta daw sama rakk bi génn bi sama rak bi génnee dafa sox moo dem rek moo demee na nga ma daggal ko ay saagay ndey naka sonal nga nu la jël nga nu sax xeexul suba xeexu ngoon boo duggatee sunu kër naa def noonu sa ndey du ma fen pétrole bi mu jël ko naka damay xaru aminta naka damay owi sama yaay billahi wala mu ne ko boo owi jee sa yaay booy jóg dama lay taal taal sama bopp mais ku nopp sa jabar am lu la naqari sa jabar ñun ay nit lan ñun ay nit lan. lan moo ko naqari jabaram. non li ko naqari si jabaram ñoom ñoo ñaar la concerné. mais est ce que yow mii tamit war nga si woon jouer ah, rôle de sapeur-pompier quoi xam waaw wax nga dëgg rôle de euh, sapor pompier weesuwul ay doomam bu demee dàq leen ay ay sëtam bu dàqee ay sëtam ay sëtam dem tout récemment Aminta la daan oo moom mari baak sëñ Saliou Mbacke Aminta di ko walal dugub di ko walal ndax day jaay cere. di ko walali sunu waa kër a ngi nii na ma sama goroo ma oo di ko walali dugub di ñëw di ko attaayal naan sama goro sama attaaya kii ba dernier moment jàmm amoon na fa jàmm amoon na fa pour def nag rôle sapeur pompier ko am sa doom bàyyi ko ni gis ko nga gis na ku téye sa doom téye njabootam man sama jëmm bopp dama ne la lu ma wax laay xam ndax ku dee ak sa bàmmeel pétrole bi la jël sottee ko bi mu ko sottee ko aminte ne dama koy waxi sama mu tëj buntu naka boo jógee dama lay taal taal sama bopp aminta naka sañoo taal sa bopp mu jël pétrole bi sotte ko ko yore briquet bi nii ne aminta booy jóg dama lay taal taal sama bopp fi aminta di jógee yuuxu sama mag bi ak fi moo dem ba ko setee briquet bi tekk si boppam ak fi mu fëlee buntu perong bi benn la dugg si canal gi billaahi wallaahi taalaahi baak sëñ Saliou Mbacke mi ma yaakaar rus na wax si sëñ Saliou lox léegi sa doom sama doom waa mais xam nga tamit bu fekkee ndogal dafa dal sa kaw yoon day def liggéeyam da koy enquête waa depuis hier ba léegi mi ngi fa dinañ ko enquête waaw may euh, enquête nañ ko enquête nañ ko oo nañ ko démb enquête ko police ko jël si boobu maa ngi fi di julli sama peron police moo ko jël si man xaw ma woon di ngeen fi ñëw gisoo leen fi pétrole nii moom laa doon boyalee léegi ne ba duggee sama néeg ma gis sa weññi pompe laay pompe su ma pompe weññi génne mu am ay ngar ma koy def duggal léegi gis nga rek weññi fañ bañ na seede nit nag booy wax da ngay wax loo xamante bu ñàkk ba pare di ñànki di yàq deru lu ma nit wax bàyyi naa la ak yàlla lu ma def lu ma defu lépp ku ma si waxal loo xamante ne laala ma ci dara wala sama doom taalul taalaalewul lu du jëkkëram boppam bàyyi naa la ak yàlla ak yonent bi yàlla na nu yàlla atte waa nga angan bu yàqoo gunge nga defar ko sama sët yaa ngi ni xamuñu fu ne sama sët yaa ngi ni kii moment boobu mi ngi nelaw non non mam bàyyi leen rek iboo ngi ne mamoor a ngi ni parce que ay xale ëllëg moo tax iboo ngi ne mooy taawam mamoor a mamoor mi moo papa yaayam ñoo ànd ba sa ëllëg sa bi amante di ñoo la ànd ak mamoor mi loolu moo ko gën a may xale boo xamante ni timis mu tëdd nga ànd ak sa doom di dang-dangi ba bërset taal amul aminta taalu tey taalu ëllëg lu si waay wax nag da ngaa inventé te noonu nag noonu privé ngi ci koñ yi ak euh, ñi ngi si koñ yi nag noonu privé yi ñu ngi koñ yi dafa am ñoo xam te yàq leen tax a jóg am ñoo xam te dafa leen tax a jóg fii ba justice dalaayee ku ma oo ma expliqué lii nii mu demee waaw sama famille dem nan ñëpp dem nan waaw ñëpp dem nan seeti ko parce que tey jii li ko dal sama kër la ko dalee kon tey jii samay famille buñ ko déggee dina ñëw ñoom au dernier moment la ñëw papaam suba gi ñëwul gisuma ko. voilà frère am waaw. ñu bëri dañu naan tamit sa doom bi mais bon xam nga ko mën a analyser quoi comme xale bu teel quoi. xam nga am na loo xamante ne sëñ bi saabu du fóot boppam tey bu dara amee version yi dafay bari rumeur fi la ko fekk fi la koy baax ku nekk ak sa version ñi seen doom te mooy ñi fanaan ci baar yi. ñi seen doom të mooy ñi nga xamante ni ñooy ñooy fanaan ci baar yi ak di fanaanoo góor ak di taxawaal ak di tendeefal ma duma fóot duma raxas amintaay fóot mooy raxas mooy bale mooy def le aminta tax mu bàyyi njàngam ma am ay seex amita bàyyi njàngam waaw erreur de jeunesse nag ku nekk lay dal. nekk gis ni euh, sa doom ñu koy tuumaal ah metti na metti na trop baag sëñ Fallou metti na. parce que maire bi bu bu génnee dafa ñàkk ba pare ñànki waaw maire Sène mosu bëgg Aminata Diop ak sëñ Saliou Mbacké. waaw ñoom di seen wax sax moom mu ne mosut d'accord sëy bi ah, kon la faute à qui. ah parce que may bokk xale bu jigéen peut-être nu mu mel ak nu mu mel ak doomam. waaw ñoom nee na d'accordul si sëy bi. Ah. kon dëddale boobu bu ne ñoom ñoo ko def c'est vrai. dëddale bi ñoo si diggante Aminata Diop ak Modemba ku d'accord si sëy yaay dëddaale waaye man mi d'accord si sëy dëddaale ma ba ñaari doom am fi mm. <laughs> dëddaale wu ma mm. waaw ah, xale yi. dañuy jël seen doom xam nga tey do jur doom xam li tax du fi mën a am moo dem ba si gëmb boppam man fii mosu fay fay ndox te kaamul bu tegoon damay jàpp ba seet teg sama loxo mosu fay fay ndox mosu fay joxe dépense moo dem ba yàlla mënewu ko woon gan. Euh, lu mu boo fa ku liggéey kañ amuwaar ba seen ba maa ko jëndal sama doom maa ko sëñ Saliou ancien amuwaar yooyu la. matelas boobu yàgg na rideau ba maa ko jox sama doom ku liggéey di indi sa jabar defe naa bu duggee ci néegam day mel ni sama néeg bee nga fekk falal bu baax ak amuwaar si batan matelas ba teref na boo bëggee ma ubbi la balee laa def démb si palanteer bi baag sëñ Saliou Mbacké laaj leen ñi 24 heures sur 24 damay xëy suba balaa ma duggaat sama kër guddi damay jaay masata nga ñëpp a ma xam ku lu ne fàng kenn du ko jeex moo dem ba amulum kii ku ku jàmbaare woon la nag ko jàmbaare woon. waa man damaa yaakaar ne même sooy teg nit loxo sax la main de choses di nga di nga di nga bind sa plainte déposer ko ñu mën ko convoquer mu ñëw mais xale bi fii mu toll ñu ñëw jël si ko devant tout le monde ñëpp daw seetaan si dama ànd ak sama dal boo ma génnee tamit di daal dem ay mbokk dem moo dem ba dan ma doon saaga ndey. billaahi wallaahi taalaahi si ginnaaw ko naal ñoom ñu ngi dem man maa ngi dem ñu toll fii. maa ngi ànd sama doom bu jigéen ba oto police ñëwee man leen doole ma may ma yëg ak sama doom ñu dama doo dem ma luyee taxi am ku nekk gi nak naan ne kee moo yaay dem moo dem kii yaay aminta ma ne ko eh mu ne ma naa ma yaay aminta moo wàññeekuwaat ñoo ne ko soxna si da ngay laaj yaay aminta mu ne ma naa ne ko maa yaay aminta waa ji ne ñoom ñu ne xulawul ne de kii dañuy laaj rek am ku ma téye ma ne ko baak sëñ Fall def ma ko dara da ngay laaj man maa yaay aminta lan la woon mu ne man waxuma dugg si oto fi ñu duggee si taxi bi billaahi wallaahi taalaahi lan ne ma sa nangam taanu nday yow ak Aminta ma delloo lekk ndax seen nday na gënu sama nday ba jéggee liggéey sama yaay toogoon de ay kapalaalin waaw ma delloo leen ko ndax wax dee leer rakam jóge seen kër ñëw di attaqué si Aminta ma dama am kilifa ah. bi bi am loolu amee dama ne damay jël sama doom ànd ak ñoom oo sama tante naka damay ànd ak ñii dem yóbbu Aminta waaye cin bu naree neex bu baxee xeeñ ñoom jóge nañ seen kër rakkam dañ ko jàpp si fii billaahi nee na ànd la tudd aminta aminta aminta ñëpp génn ñu téye ko bu fi si woon na xam ne lépp dëgg la. voilà soo xoolee sëy bi dafa mel ni mosoon woon a tas. waaw sëy bi tasoon na te bi tasaatee tamit sama doom moom la bëgg moo dem ma bëgg sama doom ci li ngeen may laaj laay tontu drapé wu ma sëy bi tasoon na bi ni mayee mu aminta ak moo dem ba pap dem ba fii la toog. ñu ne ko boo takkee na nga yóbbu ba noonu bëgg ba aminta bu ko moo dem ba jëlaatee na ko yóbbu mu ne waaw ba suñ joon yàlla tey xanaa ñoom ñoo toppatoowul seen doom xanaa ñoom ñoo aarul seen doom xanaa ñoom ñoo coiffewul seen doom ku ko seen sa doom muy tëbbee nijoor ak càmmañ defe naa bu amee war na mën a am néeg néeg bu mu luyee sax def fa jabaram ñu nekk fa waaye man maa ko yore billaahi wallaahi taalaahi maa ko yore moo dem mosu fee fay ndox moo dem mosu fee joxee dépense au contraire dama naa aminta boo teggee del mayi moo dem ba añ tibbal ko dafa si palaat bak sëñ Saliou Mbacke yenn saa añ fekk fa man a kaane añ kenn gënalu ma sama bàmmeel koo xamante ni ñàkkul dara di defal jabaram soo duggee si néegam di nga ko nawloo boo leen ngeen dugg waaw maire bi nag li mu jiñ sama doom dina leer nañ ñun xamuñu am jëkkër am far ñun askan wi ñu bokk sëy lañu xam te sey leen def dañuy sëy ba dee boo leen dul sama doom bi jëlaguma jëlalaguma ko avocat parce que tamit dañuy enquête xamaguma mbir mi fu fu muy mujj yàlla ma tim jëlaguma jëlaguma avocat léegi laa jógee police mais metti na mi ngi police su Tëngéej metti na si xale boo xamante ne ñàkk jëkkëram jëkkëram xaru version yi bari ku nekk di wax parce que fii nag version yàgg na fi xale bi est-ce que amul ay 22 ans wala 23 ans dama bëgg rek yoon def fi liggéeyam te mu bañ a am corrompre bu mu am corruption bu mu am loo xamante ni ëllëg day sonal sama doom yàlla mooy njëkk mooy mujj di sant samay mbokk di gërëm samay mbokk ndax mi mette samay mbokk rek laa gis mag desul ndaw desul waaw ñu leer ak te ñuy wax ñu mënuma leen a tee wax waaye képp ku si wax na nga sóor ne ëllëg bàmmeel bis dina taxaw nga layoog sa nijoor bàmmeel xat na lëndam na lu waaye def sa bopp lu waaye wax fii di nga wax fa ne képp lu ma siiw nit waxal te la mu wax leeru ko te la mu amul sosa sama doom yal na nu yàlla at si bak Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam baalu ma leen ko ba yomb a waaw loolu laa am ak di nag sant nag di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sama sëriñ sëriñ Touba naa jërëjëf sëñ Fallou alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf. Euh, yaay boobu ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. tur bi naka la. Aïda Samb. Ah, loo bokk la. tantam nga. waaw yaa a bokk. ñoo bokk ndey ak baay. la ñu mën a nettali si affaire bi xew. daal ñoom daal doon doon jote doon doon histoire ci biti duggaat ba si biir néeg bi si leen jote waat bi ñëwee am ay xat am na mu àndal ñu ñëw arrangé ñëw tëdd si la ko amité ne ko boo xëyee di ma fase boo xëyee danga may may sama baat si loolu daal lañ toog ba si yàgg man maa tëdd sama néeg ndax boobu maa ngi si buru ma dégg amita yuuxu ma na ma temps Aïda moo dem ma taal na boppam bi moo xeloo si laa bañ yar bu neen di ma sama ndeyam bindee noonu laa génne si biti ma génne daw fëgg yaayam amita waaw moo la ma moo dem ma taal na boppam moo dem ma daw génn bi mu génnee nete boobu moom dugg na si biir canal bi ma bi ma génne gisuma ko ndax gis naa lumière bi waaye gisuma ma dem ma ñëw fëgg yaam nekk moo dem de taal na xale yi man pour man sa xale yi la taal ndax dafa yàgg di def loolu bu dànkuloo amita sax day xëcc filu courant yi naka dama lay rey rey sa rey xale yi xam nga ñu bàyyi noonu ma daa ñëw fëgg yaayam yaayam génn ak ñu ñëw xool gis ñu Mor Demba après kooku ne ma kil tàkk mi ngi dugg si biir canal bi ma daa ñëw daanaka waaw Mor Demba doo génn mu mu temps i du mënumaa génn lii dafa metti ma ko ma ma ne ko Mor Demba génnal mu daal di jéggi génn ci benn côté kanaal bi noonu mu taxaw fa ak benn xale bu góor jekk ba si bu ma naan ko kaay moo dem mu dawaat duggaat ci biir canal bi. xam naa lakk bi moo metti daal mu duggaat ci biir canal bi xam nga mu daal di génn man ko génn foofu dafa am microbe. kenn nekkoon ci mbedd bi man maa fa nekkoon man ak xale bu bi ko gisoon bi muy tàkk di dugg ci biir canal bi ñu ñaar rek ñoo ko gis da boobu mbedd mi dafa wéet keneen ku la wax dara waxul dëgg. même yaayam ak papaam bi mu génn boo fekk na moom mu dugg ci biir eh, bi. ñu ne jaba ji moo ko taal. non taal ko. ndax xam lu tax man la taal ko du benn yoon du ñaar yoon moo demba day tante loolu day tante di xaru heure bu amee problème amita danaa day xaru am benn jour moom ak sama sama rakk bu góor bi da leen doon dàq ak otom ne da leen di fiir ba xeex sama rakk bi xeex bu metti sax xamal li ma la wax xeexal sama rakk bi xeex bu metti mu guddi gu nekk sama rakk bi fi lay taxaw ndax bañ mu dugg fii moo dema moom moo taal boppam ndax def naa nit ki bu la taale bi dee dañ la fekk si kaw la taal la a ah, mat la bi dina tàkk ndax moom amul lal sax moom mat la la am si suuf. mais moom moo ko métti ba mu ne day taal boppam. ah loolu moo xam ndax daal moog jabara moom dañ ñoom. bu ñu jub ah ah ku nekk sa fu mu toll de man de xaw ma. moom jabar tam ñoom ñaar tout le temps histoire. dañuy histoire moom weer bu nekk bu ñu noppalu ko weer weer ba si topp dinañ jotee ñoom ñaar. waaw eh, eh, yéen parents yi est-ce que yéen a si doon dox. waaw ñu ngi si doon dox ndax bu ñu daan jotee mujj gi dañuy dem ba ooyu papaam papaam sorewul mu ngi fii tout tout près dañ ko wooyu mu ñëw ñu toog waxtaan ak moom. bu ko defee mu ne moo dem dafa dëgër bopp ndax tere na ko fii ba sonn mu mu kii mu bañ waaw. mais est-ce que yéen tamit mënoo leen ko woon eh, ngeen tere ko seen doom quoi comme que peut-être jikkoom baaxul chaque histoire. tere nañ ko ko waaye déggoo li ma wax man yàlla moo tax ma wax mais buñ ko ko tere. bu wooyee ku jigéen ku jigéen ki day dem. heure bu ko oowee day dem ñoom ñaar ñooy xam fu ñuy fekkante waaw man fenn ma yàlla rek laay waxal heure bu ko wooyee day dem wala ku jigéen ki bu xamee fu Mor Ndeye ma nekk dina fa dem. voilà ñu bëri dañuy ne euh, moo daf ko daf ko bett góor. loolu moom amul ñun suñu famille xamuñu loolu ñun suñu famille xamuñu am jëkkër am far xamuñu njaaloo ñu xamuñu loolu te loolu mu wax noonu ah nañ ko bàyyeeg yàlla bi de moom moo ko wax. ndax man góoba ni man moo ko wax loolu man dem naa fa ma ak sama jabaru nijaay sama jabaru rakk bi ñoo ànd bu mu demee man ko nax yaa ngi tane dama dugg si gis ko rek man may jooy xam nga mënuma bàyyi jooyi man dinaa tane après ñun si lañ génn toog foofu ba mu xaw a timis mu xiin ñu ñuy ñibbisi hmm, bi nga demee fekk ngeen fa euh, moo moo di waa xaritam bi jur bi ñu bi bi affaire bi amee bi ñu ooyee seen waa kër ñoom jotuñu la ñu oo rakkam bu jigéen bu naan kumba ki mu tuddee doomam doomam bu ndaw bi kooku moo ñëw kooku moo ñëw ah dem fee hôpital ñun foofu lañ ko fekk bu ñu xëyee foofu lañ ko fekk hmm. waaw. Ah, mais dëj bu mu amee est-ce que dem ngeen fële. non pour dem hmm. ñun waa koñ bi yëg nañ ko lu yàgg sax ñun yëguñu ko. ñoo jekk bi saag sama sœur bi ñëw fekk man ma war a dem hôpital mu ñëw yor téléphone am daan sama kaw di jooy na ma moo demoon noppal ko na si laa dawee aw suñu waaka ñu génn léegi ñu toog ba saag nijaay moo dem ba moo fi ñëw mu ne dë dëj bi bi ma amee ba léegi mo kii ñëwul Aminta ñëwul foofu. Hmm. ñu ko dañ doon préparer pour ñëw fi ñuy préparer pour yóbbu Aminta foofu rek moo dem bu jigéen. Hmm. di xataraayu pour ñëw ci kër gi pour xeex seeg Aminta. Hmm. ñu ne ko ñu ni duñ fa demee duñu jotee ñoom ñoo leen tooñ ñu ni ñu téye suñu doom loo tax demuñu fa. ndax ñun ñu doon waaj pour dem ci la doom rakam bu jigéen bi nee na aan moo doon waaj pour ñëw fi pour songu Aminta yow ki nekk ci métit xamoo nu mu demee yow fekke woo keneen fekkewul ku waxal yàlla nga ne da nga ñëw fekk kooku bëgg ko song kooku ñoom bu demoon foofu beneen problème mun na am ñu téye suñu doom nag toog. voilà loolu amul loolu mënut a nekk rakkam bi mu wax sëyu fi sax kooku mi ngi sëy dàngu si kaw bokkuñu fu ndëkk loolu mun a nekk heure boobu 2 heures du matin ku nekk ak jëkkëram lan la mën a jóge foofu jënd pétrole di koy ne amita loolu mënut a nekk waaw presque 2 heures la waaw presque 3 heures. Amita amul téléphone sax kooku amul téléphone. Amita tamit ñu bari dañ ko mais bon. Mhm. Euh, ay yu ñaaw quoi la ñu teg si kaw Aminta. Mhm. nekkul xale bu baax jigéen day taxawaalu. kaa ma wax xam mooy sikkam bëgg simba ku nekk na am nga loo bëgg. Mm. moom xamante mu bëgg simba xaritam mm. bi mu àndal moom la jëkkëram di simb fu mu mu àndal moom foofu lay dem si demukaayam mm. amu xarit amul àndandoo. soo xoolee yaay xel bu góob lu tax d'accord ci sëy bi tamit si jikko yooyu la quoi parce que neen jikko Aminata baaxul. waxu hmm. ñun fii leen dëkk te ñoom dañoo xëy na fi cëpp may ma dañoo xëy na cëpp fii ñoom gënuñu jikko. ñoom dañoo wan ne dañoo bañ Aminata ba xam ko ba Aminata doom yoom ama moo dem sax buñ fa demee dañu leen di dàq. sax soo xoolee tamit nee nañu euh, mais bon moom xel bu góor bi daa abandonné yaayam mu topp yéen tamit yéen tamit ñoom ñoo ko hmm, ñoom ñoo ko dàq ñoom ñoo ko dàq ñoom ñoo ko dàq seen doom bi mu bi ñu ko dàqee boo génnee buntu kër gi ne am na fu ñuy jaayee ngooñ si biir seng yi fi mu nekkoon amoo ngooñ xale ko góor foofu la daan fanaan jour bi mu ko gisee toog fii damaa jooy korog jour boobu la amit te ëmb yërëm yi indi ko fii mu ñibbi si mu ñibbisiwaat fii. Ah, kon mu dugg si sëy looloo tax waa këram ko ah, ñu génne ko wala. Ah, ma xaw ma lu tax de ndax ñoom papa moo ko ñaan si ak i mbokkam. ñoom ñoo ñëw si fii ñaan si Aminta. parce que yaayam nee na xale bi mooy taawam avant moo doon takk Aminta loolu la ko doon defal mais loolu quoi. waaw kon kon ñun gis ñu lum dafa Aminta dugal nekk Aminta nga xool ndax moom jëkkër dafa ko lu mu doon yaayam moo ko ko defal. yaay mooy ñafe koo laaj fa sàmm cuuraay daango tëngéej fii xam na ko mooy ñafe di defal ay doomam yore ay doomu amita yëre bu Aminta sol yaay moo ko jënd. est-ce que am na ay chef de quartier yu ñëw dox si tànk jàmm fi ñaari famille yi. chef de quartier déedéet hmm. amoo. Euh, euh, loolu lañ ko euh, de oui ma loolu ah, ñu def ñu xaar rek yoon def kiyam liggéeyam hmm. waaw. ñu baal ma tàggatoo. waaw waaw maa ngi tàggatoo di leen sant di leen di ñaan yàlla nag moom di yal na ko yàlla leeral rek ci kàttanu yàlla ñu xam fi dëgg gi féete waaw loolu rek lay waa kay jërëjëf. baax sëñ Fall mi ngi ni mat laa bii gis nga lii la mère gàddu bi damaa ko ko jox gis nga bu tàkk gis nga mat laa enseigne bi mhm. xoolal fii gis nga bu tàkk tàkk déedéet néeg baa ngi néeg bi néeg bi léegi nii baax sëñ Fall baax néeg baa ngi nii néeg baa ngi nii gis nga xoolal fee mhm. néeg baa ngi nii tàkk tàkk tali bi yaayam tali bi maa ko jënd baax sëñ Fall tali bi maa ko jënd liggéey rek laay def ñu ngi nii taamoon la bi la doon kii mais waa néeg bi lan dëkk seen néeg ngi nii nit ñi dañ ne ko fekk mu tëdd ñu sotti ko pétrole mu tàkk néeg bu nu taal du mel ni ah. néeg bu tàkk du mel ni néeg bu tàkk xoolal café gi maa ko defaraloon sama doom sax néeg bu bi doom bi maa ko ko jox ba sañ sëñ Saali Mbàkke néeg néeg bu nu kii dina mel nii ah néeg bu ku sa jëkkër am dara dina la ki télé bi maa ko jënd ah te te te ñoom ñoom ñoom waaw wax naa ko ba nga xeexam moom di bàyyi leen noonu di ngeen weewu tabaski li la wan ni bañ ni bañ xale yi dëgg la billaahi wal ibu mi lakk na fa lakk boo xamante ni bi mu lakkee dañ ko bàyyi moom mu ñëwal boppam indiwuñ ko maay faj maay def lépp baag sëñ Salim Mbacke xam naa tax cicatrice baa ngi fi billaahi wallaahi taala waaw ñoom bëgguñu ko waaw bëgguñu relation parce que maa moom boo déggee si biir wax euh, ma geddi sama doom ñoom ah bien sûr mun na leen ko jaral parce que boo amee doom nga bañ sëy ba di nga boddi sa doom ndax bëgg gëm bëgg xale bi. sëñ bi moo dem ba dama ne la man li ma wax ku dee ak sa bàmmeel façon liggéey bu nekk dina ko liggéey ñoom ñoo waxaat seen bopp ne carrément sëy bi mësuñu see ànd kon sëy bu nit àndu kañ si ngay jël sëy bu nit àndul moo lay jaral kañ nga nga dëddale leen mais man sëy bi mësuma ko bañ. ñoom ñu sëy bi jaral nag bëgguñu sëy bi bëgg mosuñoo bëgg sëy bi ñoom ñoo ko seen gémmiñ ne mosuñoo ànd si sëy bi kon ñoom sëy boobu ñu bañ moo leen ni jaral ñu dëddalee Aminta ak moo Demba yàlla mu mën leeral nag tey leeral yàlla na ko yàlla leeral parce que nag dama ànd ak sama esprit tranquille si suba ba léegi ñetti fan ngeen di dugg dugg sama gémmiñ metti nañu accuser sa doom te liñ ko accuser amul moom nag li mu si jublu woon nag mooy ñàkk a euh, bakkanam ba pare takkal sama doom waaw bàyyi naa ko ak yàlla bàyyi ak mbokkam ak yàlla mère seen mi nga xam te nag moo wax amul lu mu waxul moom après moom dina xam ne lépp dëgg la dinaa ko porter plainte boo ko porter plainte mu ñëw mère seen maamu moo dem ba dinaa ko porter plainte waaw dinaa ko porter plainte parce que dafa accuser sama doom dañ day am jëkkër di am far ne def ko bett ak góor te néeg bi def naa diggante néeg bi sama néegu sër bi ak néeg bi def naa dara xaju fi bunt bi tax boo koy ubbi da koy dégg euh, noppi k dégg doful preuve laa doon ut góor gu am di tibbee ñi yor ak càmmoñ dama ne kuy kuy kuy tibbee ni càmmoñ bu duggee si néegam di nga di nga xam ne fii kooku lu am jox ko jabar bak sëñ Salim télé bi maa ko jënd billaahi wallaahi taala venteloo barki de maa dox sama cag-cag bi mun naa la wan bi min minuit mooy mu jëndale ma cag-cag waaw bàyyi naa leen nag yàlla danoo ñàkk ba pare ñànki te nit mënoo ñàkk ba pare ñànki bàyyi naa leen ak yàlla yàlla mi nga xam te moo mën a atte yàlla ma yàlla atte waa kër moo demba kii di maamam kii di ñëpp si baak Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa salaam jërëjëf parce que li ngay def nii nag mooy rôle journaliste parce que benn lay pàkk la te be bu nit waxee ñëwoo si keneen pour nag benn version dañuy daal ne li kiy wax dëgg la waaw mais da ngay déglu version bi nii la fa demee ku taal jëkkëram si digg lan ah <laughs> defe naa néeg bi dina tàkk wala dara waa jërëjëf merci beaucoup jërëjëf